ayca ñu dem daal di koy door ak le regard yéene kaay journal bi xëy daal di àddu ci tiis bi dal ci kaw xaar yàlla ginnaaw bi nga xam ne nag ab immeuble màbb na fa journal bi ne nag ñi nga xam ne ñoom ñooy dëkkandoo yi yëkkati nañu ci ay kàddu ne nag bile immeuble dafa màggetoon l'observateur le journal di groupe Futur Média moom it ci la xëy daal di àddu ne lu tollook juróomi bakkan rot nañu ci immeuble bi nga xam ne nag daal di nay màbb nga xam ne nag moom mooy ca xaar yàlla waaye la nga xam ne moo ci gën a yéeme moom mooy ab liir bu juróom-ñeenti weer ak ki nga xam ne mooy yaayam ñoom nag ginnaaw juróom-benni waxtu ñoom nag la ñu génnee ca la nga xam ne nag moom mooy immeuble ba nga xam ne nag daanu na fa ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fa dëkkee seen i kàddu bu nu ubbee xët bu njëkk source a ñu ko fay fekk kenn ci ñoom di woy ci turu a Lamine moom nag ca quartier ba fala dëkk nee na nag juróom-benni bakkan ñoo ci rot am na ci nag ab jigéen boo xam ne ci jamono ji xamuñu nag identité ba di ne ñeneen ñoo xam ne it ràññee nañu leen ko ci mel ni Nafissatou bajaan moom ab congolaise la gouverneur bu Ndakaaru ne lu ci jamono ji nag nañu jàpp ni mbir yi nag maîtriser nañu ko waaye nag bilan ba nga xam ne moom moo ci tukkee bilan boo xam ne bu jéggi dayoo la ndax nag lu tollook fukki nit ak ñaar ñoo xam ne ay blessé la ñu ci jëlee waaye it ñeen ñi fukki yaak benn yi jamono ji ñu ngi nag ci hôpitaux yi nga xam ne nag ñu ngi leen di fekk ci diwaanu Ndakaaru Vox Populi ne feeñu nañu ci waaye am na ci ñoo xam ne danoo sonn journal bi ne sapeur pompier ñoom nag ñoom ñoo wax li ni mel waaye it ingénieur développement urbain bu ndakaaru di Biram Diop nee na nag batiment bi ci boppam moom màggat euh, beneen tiis boo xam ne it ab euh, père de famille boo xam ne moom dafa buggoon nag daal di faat ñaari doomam loolee libération yéene kaay moo nu koy xamal foofee ca caaroy sant yàlla euh, journal bi ne paaka la yore woon mi am ci lu juróom fukki at benn a ah, ci noonee nag la tëju ci néeg bi moom ak ñaari doom yi ah, kenn ki am ñetti at ah, ca des juróom journal bi ne noonee nag police daal di ñëw ngir nag daal di waxtaan ak moom mu bañ a def la nga xam ne loolee nag la xalaata def waaye journal bi ne police ba mu yegg ba daal di nag défoncé la nga xam ne moom mooy buntu bi tàmbale woon na def la nga xam ne moom la bëgg a def ci li nga xam ne moom mooy baat bi waaye journal bi ne nag moom mii nag dafa am feebaru xel enquête yéen kaay daal di dugg si ci lang gi àddu ci leneen daal di wax ci commission d' enquête parlementaire journal bi ne ndax du ñu dem ah, ci confrontation diggante ah, député yu farak Amadou Ba ya nga xam ne ñoo àndul ak moom di laaj boo xam ne nag enquête yéene kaay daal na koy fësal ci xët bu njëkk bi le quotidien ca booba jamono ne nag bile procédure faw nag ñu teg ci ay laaj waaye it boo xam ne tey jii nag lañu ko woote journal bi ne bu ñu sukkandikoo ci règlement intérieur bu assemblée annulé création commission d' enquête Sud Quotidien ne lii nag docteur El Hadj Omar Diop bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daan na ci àddu ne assemblée national amul benn prérogative ngir enquêter ci décision boo xam ne mi ngi tukkee ci conseil constitutionnel ca booba jamono le témoin yéene kaay àddu ci rapport Transparency International nga xam ne nag moom mooy réewu Sénégal ci jamono ji ngi nag ci zone euh, rouge dañuy wax ci tàggat yaram ubbi point actu sport journal bi wax élimination équipe bu Sénégal ca Coupe d'Afrique des Nations foofee ca Côte d'Ivoire journal bi ne tactique bi nag moo ñu rey sport le peuple ne ki ñu rey kay du kenn kudul arbitre yu VAR yi journal bi fësal seen nataal ñoom yire arbitre tribune sport ne gaynde yu Sénégal naam toog nanu waaye ci jamono ji keneen koo xam ne it amoon nañ ci moom yaakaar moom mooy Maroc mi nga xam ne demoon na ba ci demi-finale final Coupe du Monde moom nag démb la Bafana Bafana soxna yu Afrique du Sud daal di nag éliminé ci bile compétition moo tax nag jamono ji am na ñenn ñoo xam ne ñoom yëkkati nañu ay kàddu ne Maroc moom lenn képp moo ko yóbbu woon ca Coupe d'Afrique ba moom mooy xefe ba daal di nag euh, qualifié la euh, Côte d'Ivoire mu jàll ci quart de finale ñoom nag jamono ji ñi ngi takk seeni godaas ngir ñibbi seen réew.